gannaaw ay fan bañ duggee ci li nga xamante ni mooy campagne électorale bi benn Bokk Yaakaar fii ci cees am nañu ay jafe-jafe lu ni mel moom la nemmeeku ci ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk fële ca commune ouest le ministre ba jatara dafa nekk di yàq ay effort yu président de la république son excellence monsieur Macky Sall ak président Idrissa Seck def ba fii mais dañu seetlu ni ba Diattara dafa nekk di yàq suñu liggéey ñoom ñooñu ñu ngi joxañ baraamu tuuma ki nga xamante ni mooy Yankhoba Diattara parce que dafay exiger ñu boole ay ndawam ci liggéey bi sinon du ñu jot moyens yi nga xam ne moom la ñuy liggéey ñu bëgg moom Yankhoba Diattara mu xam ne ay moyens am mu ñëw ak mu ñàkk ñëw dañuy liggéey parce que enjeu bi c'est le triomphe du président Macky Sall porté par le président Idrissa Seck à Thiès Ouest. jàppalewul président Idrissa Seck jàppalewul président Macky Sall mais li gën a garaaw mooy situation bi mu nekk di créer c'est un cancer biir Benno Bokk Yaakaar moom Thiès waay dañ koo wàccu. surtout Thiès ouest ngir yàlla bu mu yàqu wàcc ci terrain bi dañu taxal war ak ay moyen ak ay booyam wala mu dem toog Gambie ba le premier août mu ñibbisi incha allah. jafe-jafe yooyu am ci ndaw yi moo am ci enseignants yi nga xamante ni ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñoom it ñu ngi alerté bu baax kii di président de la république. jamonoy élection ñun jàngalekat yi ñu amaat mbégte dellu siwaat di ko sant ndax moo am xarañteewu taxawal kuréel gu ñuy tuddee pôle enseignant de Benno Bokk Yaakaar. ci comité électoraux yëpp. loolu nag su ko président de la république defee dañuy jàpp ni déglu na jàngalekat yi nga xam ni ñoo laxasaayu ànd ak moom. bi ñu ko taxawee nag cees ci loo xam ne sax ñun yëguñu ko woon automatiquement dañoo jóg woo suñuy naataangoo yi nga xam ni identifié nañ leen ci parti politique yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci mouvance bi waaye ba fi ñuy wax ak yéen jotaguñu. benn ressource bu ñu mën a permettre ñu exécuter programme boobu. enseignants yi ak ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci benn bokk yaakaar. ñoom ñooñee wax nañ ni. avant campagne bi ak bañ duggee ci campagne bi ba léegi ñoom ñooy def ay porta à porte di def ay proximité di dem seeti askan bi di leen wax li nga xamante ni moom la fi njiitu réew mi liggéey. ak li nga xamante ni mooy enjeu élection yi ba moo waral ñuy ñaan ci ki nga xamante ni mooy président Idrissa Seck ak président Macky Sall ñu wax ak leader yi nga xamante ni. ñoo nekk fii ci Thiès